Assalamualaikum wa rahmatullahi taala barakatuh. donc dama ñëw rek pour def vidéo bi rien que pour li nga xamni mom lañu lañ tay ci kaw Adji Sar ak Ousmane Sonko ak maître Elias Diouf avocat man premièrement en tant que nit être humain en tant que julit sama digënté ak Ousmane Sonko ci Adji Sar Ousmane Sonko dama lay balu ak dama lay am immunité ne Ousmane Sonko ma ngi lay balu ak pourquoi ne Ousmane Sonko ma ngi lay balu ak moy bi ciow lu jógee ba léegi lu nek wax naa la ko la nga dem leral. weddi wulo. donc bu lu melni amé génn Adji Sarr génn ak avocat mu wax té nit ku nek nit bëgg dëgg tay ki ngay wax yalla rek tax So dégloo wax yi di nga wax yi sax lire buy nelaw wax yi fi aji sar wax lire buy nelaw kon l'état du Sénégal assemblée nationale nañu jël immunité parlementaire Ousmane Sonko ñu délo ko Ousmane Sonko mu délo ci parce que li fi aji sar raconté man bokku na ci nga xamne dañ doon dañ doon plaider ne nañ jappalé aji sar ci suba rek mo ci mujj tay ci suba def na ben live ne nañ protester aji sar, parce que kaw de viol la mais li fi aji sar wax de matin midi soir bu demone tribunal day daanu parce que wone nañ wax bu dofé nopp ya koy dégg war nañu wër man sama waxu dem moy sama waxu tay ken momuma dama libre ci sama sama conscience mais bu may wax damay wax sama aqulaay taala waxuma ngir ma sàmm waxuma ngir ma demba tey le 16 mercredi ci suba def ben benn live mais bi ma seetaanaatee Adji Sarr conférence de presse dama xam déclaration de presse la wax dëgg fa yàlla képp koo xam ne kii nit nga war ngaa xam ne mu wax yéenewul mana yeewul muus muy nelaw te du wax bu tegu fenn du waxu dëgg Dengan nag moo neex yàlla man Ousmane Sonko ànduma ak moom politiquement ànduma ak moom parce que bu ma koy ŋàññi peut-être ci doxalin politique am laa koy ŋàññi mais lii tamit su ma ci musaana wax dara tey lii feeñ dama am honnêteté en tant que nit être humain ñëw na ko Ousmane Sow en tant que ak ngi lay balu ak te bu ngeen demee video, sama vidéo ci ginnaaw il y a quelques mois de autant pour moi il y a quelques semaines ne Digan Adji Sarr ak Ousmane Sonko diggante séeréer la ak jola ñu nekk ay kal képp ko ci xamni ki war nga Sénégalais di ko gis ala kuliyaalin muy Ousmane Sonko muy Adji Sarr mais tay li Adji Sarr révélé lim tenangu wax ni yépp ku bëgg dëgg rek té nangu dëgg di and ak dëgg di nga xamné wax fi dara lo xamné ni yenu na mana parce que wax ji yépp amu ci dara lo xamné ni mën nga ko jël té ko fenn ni lii mu yokkat mën naa ko tablé wax dëgg fa yalla li nak limuy indi moy lam nga waxone moy góor ñu ñoo bon ñoo soxor ñoo iñan parce que aji sar mu def def ko ci ciobare bopam góore na ci ginnaawam ak lo meuna jot ak Ousmane Sonko ak lu ngeen meuna a seq na ci ginaaw moko xalel xel mu bon mi moko def def lolu jef ji bon ji ay dom ni ay domu senegal ñak ci seen bakkan ñi yaqlu ci seen alal kon li dafa nek lo xamni aji sar dafa wara payer les pots cassés parce que bu Ousmane Sonko moko ko day payer les pots cassés comme aji sar dafa fen Sénégalais taal dëkk bi donc dafa war a payer les pots cassés man ànduma ak Ousmane Sonko dëgg rek laa àndal dëgg rek laa àndal mais lii ku bëgg dëgg te nangoo dëgg nga ko xam ni carrément lii dara amu ci ay fen la ay sos la ay fen la ay sos la nañ bàyyi jàmbar bi tout tranquillement mu dem defi liggéeyam mais du tey tamit ci kaw cadre liggéey politique bi muy def buñ ci gisee loo xam ne ànduñ ci ak moom dañuy tax taxaw carrément ne ànduñ ci moom mais lii kenn amu ci loo ci natable kenn amu ci loo ci wax nañ doomu jàmbar ji mu dem exercer liggéeyam nañ ko delloo immunité parlementaire am buy porte ali aji sar plainte ko porter plainte parce que ñi ñi ko courser seen course bi dara baxu ci liñ ci wax yépp ay fenn la ay sos la nañu bay jamm tout tranquillement mu dem liggéey liggéeyam mu dem defi lam daan def continuer dox doxam mais lii c'est très sale c'est très très sale vraiment dafa ñaaw quoi man dama rus bi ma sétané wallahi lazim dama rus su ma nit am immunité duma jël sama caméra di filmer wat di waxat li ci Ousmane Sonko parce que ci suba rek lu ma ko yekkul amul waaye la may waxam ci côté politique mais li nga xam ci côté Adji Sarr la Ousmane Sonko man maa lay baalu ak en tant que séeréer ak joolaa soo ma baalee baax nag soo ma baalu am naa droit baalu la ak mais lii ay fen la ay sos la nañ bàyyi jàmbar bi tout tranquillement leen lu muy sax état Sénégal nag kooku mook état Sénégal la moo ko Adji Sarr amatul dara nañ ko faxas ba mu set amatul dara voilà donc loolu laa ne woon rek naa def benn vidéo pour envoyer ko pour demander à Ousmane Sonko pardon jàmm xéwal